fonk barab bi ak wormaal ko moo tax mbooleem taalibe yi ku ci dugg ci jumaay Tuubaa ju mag ji doo sol ay dàll tànku neen ngay def wala nga sol ay kawas yenn waxtu yi nag naaj wi day tàng lool ba tax na karo yi boo ciy dox tàngoor wu jéggi dayo moom moo ciy bàyyeekoo ba ñu fiy dugg dañu koy yëg bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides fas yéene soppi karo yi def ci yeneen i karo yu yees yoo xam ne mën nga ci dox waxtu wu nekk te du tàng bunt yi nga xam ne ci lañuy ci la ñuy ci jumaa ji nga xam ne dafa laajoon yeesal ndax léeg-léeg tàngoor rek yu mel ni ci nekk eh, kilifa yi ñeewante ci taalibe yi amoon yéene sopp ko kon loolu moo waral ñu tàmbali liggéey bi waaye nag des na ko gën a yaatal ci yeneen yeneen anam eh, Cheikh Bachir nag joxoon joxoon ma ci ndigal boole maag sëñ Moustapha Keppe moom mi nga xam ne moo moo fi moo fi teewal njabootu waa kër waa waa Njuga Keppe famille Njuga Keppe yëpp. xam ko su ma doon dolli njëggal ak yërmande. yàlla dogal moom it euh, lu mu fi bàyyi woon ay kar yu yàgg yum mu fi bàyyi woon. nga xam ne ca pale ba la jëme woon. palais ba ñuy wax palais Njuga loolu ko taxoon a jóg ca jamono boobu yàlla dogal boobu ba léegi karo yaa fa waaye kon suñu borom booba dogal na ne euh, karo ci jumaa ji la jëm waaw kon. Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadr moo fi teewaloon Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou ci ndorteel liggéey bi mu ànd koog waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ni ñooy saytu lépp lu jëm ci jumaay Tuubaa ju mag ji. sëriñ bi leeral na yéene gi nga xam ni sëriñ Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou am na ko ci jumaay Touba mag ji. kon nag liggéey bi ñu tàmbali euh, liggéey la boo xam liggéey bu am solo karo yi xam ngeen euh, ñaari karo du ko seex am na ci karo yu weex balaa karo la am ci boo xam garanti li garanti nag karo bu seer la ci gën a seer la bokk sa waaye day tànge boo demoon boo demoon Madina am na fa waaye dañ ko mujj dindi ca fa ca gën a bari ndax karo bu seer la waaye ñaar li ci ëpp. ci biir lañ koy jëfandikoo foofu ne aw tàngoor du fa agsi bu dee tàng day day téye tàngoor boobu ñu di ñu fi mën a jaar moo tax penku bi euh, ci jamono suñ siir Muxtaar lañ ko soppoon defoon ko comme nii ndax bii euh, alhaj yokkee moo ko ndax karo bu bu seer boo xam ne ci gën a seer ci àdduna bi waaye dama jaar ñu sërmal ajjuma léeg-léeg da ngay yërëm nit ñi da gis nit ak pëstef mu summi dàllam mu summi dàllam ndox ba ci àgg nga gis ne mënatu mënatu koo dékku ndax ndax tàngooru métti sama classe bi nga xam teel nañ koo xam sax ay kawas lañu yóbbaale waaye xëy na ñëpp tolloowuñu ay ay ay ay jigéen te Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu wax ne wax na ne sori dàll ci penku bi bari na lu nit ñàkk te mu ko xañ moo taxoon sax mu baale ko ne ba ba ba ba maa ko defaroon ci yooyu jamono ba nangatul ko fa jaar ngir bañ nit ñi di fa soli daal kon nag liggéey bi moom jumaa ji moom ndigalu Sëriñ Tuubaa la mooy ndigalu Sëriñ Tuubaa li ko gënoon wax ci wax lu lu bari ndax bu àggee ci ne bu ngeen ko yëfutoon malaayika yi def kon loolu lu sotti la liggéey bi nag waa kër El Hadj Babacar ñu gën koo xam ci Ndiouga Kébé ñoom ñoo ko sasoo fas yéene ko liggéey ba mu àgg. ci sëñ Moustapha Kébé nee moom amul kàddu yu mu sànni kàddoom moy sa cadeau duguna na ci bir neena na dañuy sant rek cyant ko xamante ni amna fa mu tambule waye amul fa mu yam ndax bu allah gi ñu kebe daan jëfël sëriñ bi dem ba am ñeen fukki at ginnawam ab liggéeyam ñëwaat duggaat ci biir liggéeyub sëriñ bi neena day war na loolu kat liggéey ba sëriñ bi nangu ko ndax manan nañ ko bëgg te duñ ci am ndigal manan nañ ci am ndigal tamit te du jappandi waaye ñaar yëpp nag dajafe bëgg gi am na ndigal li am na kon nee na ñu ngi sant sëriñ bu baax di sant cant googu nga jotal ko sëriñ bi sëñ Moustapha nee na moom benn kàddu rek la ci am loo xam ne da koy dugal ci sa wax gi di ko seere ndax nee na allah yi njuga kewee bi mu tukkee dem Baxdaad dem siyaara ji barabu Seydina Aliyun karamallahu wajhahu nee na ñam àndaloon daf ci am gis benn làmp boo xam ne lépp day oor nee na mu yéem làmp ba nee na allah yi njuga ne ko ci yow day xamoo li ngay wax daanaka rek daa ne ko suñu waaji ya Tuubaa day kii am na fi junniy at hmm. am làmp bi bàyyil ba suñu waaji am junniy at fam tëdd waxuma ab lamp waaye barab bépp lépp or lay doon jumaa jëpp waaw nee noonu la ko waxe woon nee na kon nag lii ni nga ko waxee léegi rek loolu lay dëggal nee na jërë ñaanal baax a baax sa taxawaay yi ndax nee na bala sëñ bi boole ñoom ak léegi lépp ci soññ ak ki taxawu boole leen ak sëñ maam Thierno bañ def lépp ba di ko tàmbali tey suñ borom yow tamit kàttanal la dëgëral la ndax sa taxawaay yoon yëpp rafetlu nañ ko taalibe yëpp rafetlu nañ ko. waa kër El Hadji Ndiouga yi nga xam ni ñoo sasoo bi la liggéey fas yéene ko liggéey ba mu àgg sëriñ bi sant na leen bu baax a baax ci seenub yéene ak seenu jëf waaye santaale seen waajur yi nga xam ni ay jëfam ci jumaay Tuubaa ju mag ji ba léegi mi ngi fi des. ñoom ñii ak seen waajur am tawféexe te sëñ sëñ Abdul Ahad ku ko xam ko ne xam ne ku ma noonu segg mbir la ndax danaa wax naan mbañum yoon wi mooy tàllal sa loxo ku dul yàlla mooy mbañum yoon wi modd modd yadi li xayrihi indi indi junoon waqaada li xayr al xalaal wal funoon moo tax bari waa ne ku mos a dikk ci dëkk bi fay def dara waaye daw ko nangu moom nag moo yoon na ko mu liggéey jumaa ji liggéey na fi liggéey bu bari bari ndax naa ci nettali benn kéemaan ndax Cheikh Mamadou Fadil bi liggéey bi àggee ba jumaa ji àgg ndax moom danaa laaj Sëriñ Tuubaa ndigal waxtu ne ko da daa bëgg nga jox ma ndigal soxna Aminata Bousso la ko daa jaarale ay lettre yu mu ko daa bind ba Sëriñ bi tàmbalee jumaa ji nag woo leen moom ak si Cheikh Mamadou Moustapha magam ju tedd ja ak Sëriñ Massamba ak ñam leen boole loon Cheikh Ibrahima Fatim moo doon jëwriñ ji liggéey bi ak Cheikh Issa Dieng Cheikh Issa Dieng moo taxaw jumaa njaarim jumaa waaye ci la bokkoon euh, suñ bi ne ko sama liggéey boobee na nga fexe ba ku ñëw nar a ca fekk ku dem nar a ca bàyyi na nga fexe ba ndigal li ma daan laaj itam euh, na nga fexe bu la ca kenn man moo tax ma def ko yitte suñ baar ma sama dégg muy netti des comptes yi ñu def ñu daa def nii sax bu ko bu ko daa joxe moo ko daa toppal boppam xaalis bi sax dafa daa yëkkati di ci fas nga xam liggéey jumaa yi ni mu yor bi bi liggéey bi àggee daa jàkkaarloo sëñ bi ne ko fii leen toll ak yow ndax fële suñ dool fële fële suñ dool toll waaye buñ ko ñu def ko or moo ñu ma tax ñu bari biñ déggee ñu ne alaaj ñu def na or ci barabu suñ Tuubaa ñaa fekkoon waxe suñ Fallu ja ñoo xam ne baatin boobu mu ak si wat kon liggéey bi ngeen tàmm daal di yéen njabootam yi te yàlla def ren la am ñeent fukki at kon loolu tawfeex la te mu jëmee ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa yéen itam ginnaaw bi ngeen jël ko def ko addi ki fi nekk Sëriñ Tuubaa mu ne fi ba léegi ni yaa dogal mu dem ba Cheikh Mamadou Mountakha di ko commande ngeen war koo jënde mu tombeeg seen xalaat kon loolu tawfeex la ak day mel ne payu Sëriñ Tuubaa la rek xasee gi ma suñu affaire jox xam naa danaa leen ko jox ngeen tasaare ko dañ ko ko jox léegi mu joxaat ma ko waaye boo xoolee ba ci biir najsin muhsiniina la ko la ko Sëriñ Tuubaa tànkee gis nga yaxdimuhu fuaadu min nii wal yadu ilal jinaade wa hudahu al afidu loolu rek firnde la Sëriñ Tuubaa moom daa am nekkul sut fa lu doon rek lu mu waajal kon nag yéen itam liggéey gam liggéey la Sëriñ Tuubaa rek moo rogalaa ci yéen ba tawfeex ji ngeen am def ko ndax ay liggéeyal yu bëri yoo xam ne sëriñ bi war na ko defal boppam ci jumaa gis ngeen ne parasol yi gis ngeen ni mu waaye sëriñ bi xam ngeen université dafa nekkoon liggéey bu rëy bu neexutoon a boole lenn moo tax ndegam cet na nag am na yeneen liggéey yoo xam ne war na ko fi àggale te yéen ci waaye lii moom yàlla def na ñoom ñoom tawfeex tàmbalee ko laata sëñ bi def liggéey boobu donte doon def na ci lu bari nag ndax xuba yi yëpp moo ko àggale boo ko doon xool ëpp na sax un milliard waaye liggéeyam décoration day moo mel day seer te ko mën a xam kon ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal yéen suñu Moussa di leen yóbbante ñëw ci sa njaboot gépp mboolem yéen ko àndal ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen jef ko mu tàbbal ko ci liggéey ba seen waajur ji liggéey ba Sëriñ Tuubaa ci nekkam tuyaa ba jaag lépp fekk ko fa te yéen tam ngeen bokk ci ak ñun ñii ko fekk ñëpp ak bépp taalibe ak bépp jurit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fu ñu toll nii nemmi ko loo xam ne lu ci war a yokk la ni ñu ko xamee jumaa moom ndegam jenn jumaa mu dul ak garawaat fi mu ne jumaay seen Tuubaa ji nga xam ne murit yi fu ñu toll seen yéene fekk duñ ko or am jàmm jamono mën naa dox ba lu ci bari doon ko ndax sëñ moom mbiram moo dem noonu di ñaan naal yi nga xam ne moom la naal moo àggale ko ni ni ni mu gënee di ci am yaakaar bu baax ndax ñi nga xam ne yàlla yàlla dogal ñu tabi seen loxo tey kenn du la guleet ndax ay wantaati rek képp raj ñu ko moo koy def ci jumaa ji moo def décoration bi ci biir ak yu bëree bëri yoo xam ne gannaaw buñ ci buñ ko jullee daal moo ci njëkk a dugalaat loxoom ba lu bëri moo ko ci taaral ñaan ñoo tuuti moom dool yërmandeem dool leeram wala ko sëriñ ba Cheikhul Khadim ñaan njabootam gi fi bàyyi tam suñu borom teg ci loxo ba lépp lu mu yéen woon a def ñu defal ko ko ni mu ko góobee bari fi seen wàllu bopp. liggéey bi nag ñoo ngi ko fas yéene door ci samedi bi dëppoog le 11 mai 2024 lépp yemb na mboolem karo yi ak li nga xam ne moom moo ci aajowu ngir defaree ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee lépp nag ñu ànd kook sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ni sëriñ bi moom la dénk lépp lu jëm ci saytu gi ak taxawu liggéey bi ba keroog muy àgg.